moom natt bi la la dëgër nag yàlla na ko yàlla gaaw teggin et puis tamit mbaam gàtt waaye ci jur gi la bokk albarka kayre ci ñun la bokk moom it natt boobu mel dal na ko moom it war nañu yëngu ci biram suñu kilifa yi ñu am ñu ngi leen di dagaan régime bu bees bi fi nekk ñu ngi leen di tàllal loxo ndax ay jaam lañ rek yu xeebu te bu nattu ñëwee ñaan rek nga ci mën ndax maîtriser wuñu justice man nag jaar naa fa la dëgg jaar yëfu góor la yëfu jàmbaar la surtout muy nattu ah, yàlla na ko yàlla gaaw nit dellu si ko suñu loxo waaye axul am li laa yàgg jooy ma collectif bi war a daje ci làmb masse bi war a daje ci làmb bu dajee woon ci làmb du ñu yàpp di ñu pénétrer mais da ngay wax ñu ne daa bëri wax wala daa mën a wax te bis boo bëggee ku la waxal jot da ngay bëgg ñëpp daje ko waxal la du am sens nañ takkoo doon benn say li ma si la wax day dëgg CNG mu amee grâce à mbër ana waa CNG kenn gisu leen fi pour lan dañuy dagg suñu pour cent di dagg suñu assurance ni ñoom ñoo ñuy lif boo yëngatee dara ñu dagg la ko moo bu mbër amee benn jafe-jafe ñoom ñoo fa war a njëkk a ñëw man nag ambassadeur mbër yi laa noonu laa tuddee suñu bopp lu dal mbër man la dal quoi tant que maa ngi am Euh, lu dal mbër dina ma dal tant ngi dund lu ñu wax mbër dinaa ci jóg wax ci sama kem kàttan wax ji nag du mën a bëri li ñuy def mooy ñaan kilifa yi surtout waa Géejawaay am na fa kilifa yoo xamante ne kenn doo ko mën a naaj la situation kon nañ jàpp ci yàlla te yàlla rek tax ñu jàppale ko ndax fee mu nekk du place góor du place garmi te moom góor la garmi la kenn dégg ko ci leen ax lu làmb ku fi nekk rek li la war mooy nga daw li yërmande te dimbalee la de ñaan lekk ngir mu delluwaat ci njabootam parce que justice kenn du xëccoo moom kenn du bras de fer ak man su may blâmer waa CNG ñi nga xam ne gisuma leen ci benn part rek laay blâmer ci ak njabootu làmb bu ñu waxee dëgg te yàlla tax quoi njabootu làmb lii asaka yi njabootu làmb tollu nii mais bu leen dalee benn mbër na ñëpp génn te yàlla tax ndax kum daloon da ngay bëgg ñëpp génn dëgg nag boo ko déggee mu xatal la rek xëy na xolaatal sa bopp ko te lii may wax dëgg la waa làmb nañ takkoo benn say ndax benn bant neex na dagg mais fukki bant boo ko bëggee damu coono génn loolu dëgg yàlla ñu jàmm di ñaanal bi ñu ngi leen di ñaanal jàmm presse bi tam yéen tamit seen liggéey yàlla yàlla dolli seen jàmm yàlla ko yàlla salaamaaleykum euh, ñu ngi nuyu kenn ku ci nekk sa tur ak sa sant ñuy dellu di santaat yàlla baax a baax di nuyu presse bi fi nekk parce que tey message bi ñuy lancé ak grâce à ñoom ñoo tax keneen ku ci mënta jot di ko jot kon ñu ngi leen di remercier bu baax a baax a baax beneen bu ci des aussi di gërëm son papa père Bécaye Mbaye dama koy profité teel koo wax bi mu def xëy na mun na jàpp boppam la ko def waaye ñun ñëpp la ko defal di ñaanal la dëgër nag yàlla suñu borom génnee ko ci situation yi mu nekk dund nag moom lu ne xaj na ci. waaye xëy na lii moo gën ci moom amuñu lenn nag lu dul toog waxtaan suñu biir mooy ñi nga xamante ne ñooy mbëri géejawaay yi bu ñu paree ñu dinañ toog waxtaan kenn ku ci nekk sa fukki dërëm ak sa cent nañ ko jéem a dajale beneen bu ci des mooy ñun ñi nga xamante ni kenn ku ci nekk am nga say nit yoo xamante ni yaakaar nga ci ñoom boo leen mënee woo nga woo leen nga waxtaan ak ñoom di gërëm tam suñu benn grand bu tudd Sadio moom pare na pour yëkkati un million pour teg ko ci loxo papaam maa ko ci sant bu baax a baax di ko gërëm beneen bi ci des di waxaat suñu mag géejawaay yi ku ci mel ne Aziz ñu ngi doon waxtaan ak Baye ak Kor Ndiak ak Masata dinañ fa dem na gën a waxtaan ak ñoom ñu seen gërëm xeebuñu seen dara Margaret nag négligé wuñu yëf yi ñu ngi waxtaan xëy na situation yi yi mu tombeel moo tax yu bëri pour nga profité ko day métti ñun waaye daal ñu ngi tàllal suñu loxo ci ñëpp mu tàmbali ci justice bi jàpp ci askan bi ak mboolem doomu aadama boo xamante ni mën nga koo jàppale ak ci bépp fànn xeebuñu ci dara ñu ngi leen di remercier nag ndax ni fi war a wax bëri nañu merci. jërëjëf dinaa leeral tuuti kaso importance bi mu am ci kaso tey ki ñu tëj kaso. jamono bii dañ ko téye. bu fekkante ko ñun ñi daje ci saal bi kan moo ñu mën a wax. ndax day dund wala du dund kaso boo mën gis dee lay fang ndax bu ñu la téye mënatoo de dem benn activité am na loola yàlla ay fegal kaso boo mën gis dafa am lu muy def ci dundu doomu aadama surtout ci xeetu Seydina Muhammad kon ki ñi fi dajale jombul kenn nañu bàyyi seetaan bi nañu bàyyi def di fësal ndax xalaxal mawt wal xayaati dunia liyabluhum ayyukum ahsan ahsana amalan yàlla teg ci ne kullu nafsin zaa'iqatul mawt teg ci ne kullu man alayha fan wa yabqa wajhu rabbika zul jalaali wal ikram ginnaaw yàlla nee na dara lu fi des kon dara lu fi ku fi am dara kenn amul fi kenn amul doole kenn amul fi xaalis kenn amul dara jalla jalaaluhu rek moo fi nekk ñi ngi ñaan Lac de Guiers man damay wax dama koy wax fu ne parce que man xulil xàqa walaw kaana muran dafa am fu ma ko teg ba ci samay waxtaan dama koy wax duma wax ni sax dafa am defet parce que defetam boobu dañ koo war a saytuwaat kon mooy mbër mi gën a riis waaye mooy mbër mi gën a néew ay taxaw nañ koy wax ndax dëgg du romb ay nopp lii warul woon am parce que a nga tax lii waru woon am waroon nañ koo waxtaane buñ ko waxtaane woon lii am nii du am maa sow spécial alaaji Bécaye Mbaye kilifa loolu lañ koy doyee comme nii jaw def ak liiru jaan def gis nga dëgg du romb ay nopp bu ñu bàyyi ba nit ak problème bu jóg première responsabilité bi mooy CNG fii ñu koy defee parce que tey waroon nañoo taxawu Lac de lii am nii du am parce que ñoo couvrir Lac de ñooy dagg xaalisu Lac de ñoo wutal assurance kon na leen seetaan làmb ji man gisuma président CNG e, gisuma secrétaire gisuma keneen ana làmb ji ñun buñ ñu xamee tey ban man di sant yàlla lu dimbali yàlla yi grâce à mbërum làmb kon na leen leen bu mbër amul seenu am fii ku fi siiw wala nga wut looy jaay ci làmb ngay jaar fii ñun ñu taxaw ñëpp ñu naan pourtant diw na leen sëriñu diw na leen sëriñu ay doomi jàmbur ñooy summeeku ñoo am ko ci seen ci seen image kon na leen delloo kël ñii summeeku di bëri te xam ne ay doomu aadama lan mën nañoo agressé ñi mën nañoo dem defi laneen wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala asalaamaaleykum wa rahmatullah gannaaw ba ñu sante yàlla julli ci yonent bi ñi ngi sant suñu ñaari wayjur di gërëm di sant mbooloo mi nga xamante ni tey jii ñoom ñoo fi daje di jël nuyoo bu ak cant googu di ko teg ci suñu loxo doyen Diaw ak Pambay mi nga xamante ni moom mooy président wu écrit Waalo ak Arouna defe naa wax ji li ci ëppoon solo ñi ma jiitu wax nañ ndax dañoo am mbokk boo xamante ni dafa am jafe-jafe muy Lac de Guiers numéro 2 te jafe-jafe képp ku ko am ci àdduna ñaar ñoo la ca war a gën a taxaw walla ñett sa mbokk deret ak sa mbokk yi nga xam ne da a bokk liggéey ñun yàlla def ñun ñu bokk ci mbokkam yi nga xam ne dañoo bokk ak moom liggéey ñu jàppe ko aussi tamit nattu sëriñ bi wax na ko léegi nattu fu nekk lay ñëwee indi na ci ay aaya yàlla bi muy wax bi muy bind doom aadama jiital faa dund jiital dee mujj dund yëpp expliqué na ko vraiment comprendre nañ ko ndax aussi tamit ñun ay doomi daara ci biir ay waxam tamit jàpp na ne lii nattu suñu borom la te mënuñ woon fexe ba jaar ci moom kon ñun ñëpp nangu nañ aussi tamit nattu boobu mais bu nattu boobu jàllee ba noppi aussi tamit dañ ci war a am tuuti benn jàngat ci ñun ñi nga xamante ne ni dañoo bokk ak moo métier bi bokk ak moom aussi liggéey bi yaakaar naa ni depuis ko ba ko lii dalee ba nëgëni bi ay mbokkam taxawee ñun ñi bokk ak moom liggéey bi aussi dañoo waroon a taxaw taxawaay boobu nag am na lu ci am mais dafa des lu baree baree baree bari sëñ bi junj na ko affaire bi am ba nëgëni bu fekkoonte ne aussi tey famille làmb taxawoon nañ ni waroon a taxawee tey yéen du egsi fii mais nag xaraguñ kenn xasuñu kenn dogalu suñ borom. mais nañu gën a laxasuwaat ñun ci suñu biir te gën a mën a booloo pour jàppalante aussi ci suñu biir beneen bi ci des waruñu yem rek aussi tamit ci ñaan kenn ku nga nekk ci ñun tey jéen lépp loo yor wala loo xalaat wala koo xalaat te yaakaar ne war na cee mën a jàpp waroon nañ koo wan a woo gaa bari na ci ñun ci woo ci suuf am nañ ci aussi ay promesse mais nag wax dëgg ba tey ci dara sotteegu ci mais li ma bëggoon daal képp koo xamante ne ñeen tey jéen bonne volonté nekk acteur aussi ci làmb ji mbaa nga yàgg a bëgge làmb te xam ne li yéen suñu problème la ñun te xaw nañ ci new doole nga ñëw dimbali ñu ci ba suñu frère delluwaat aussi ci ak njabootam bu ñu paree ci ñu ñaan état jaarale ko aussi ci ministre de la justice jaarale ko aussi tamit ci fi ko war a jaarale ci lii fi jot a dajee ñun de wax dëgg yàlla wu ñu droit mais bu yàlla defee jàmm fii ak lundi wala suba vendredi ñu yóbbu li ñu yor ñu jéem ñu cee mën a dimbali ñu dagaan leen loolu ñu ñaan leen laay war a suul ñu mën koo libéré leneen li ci des ñu jël ci ay engagement te xam ne dinañ ko mottali ci kàttanu suñu borom ndax moom fee mu nekk mënatu koo waaye leer na ma ni moom jant bu ko ngelaw uppoon bu dikkee dana ñu fi nekk nag ñun war a mën a taxawe position boobu lu ci waay am ci lu baax génnee ko lu ci waay xam aussi ci lu baax génnee ko bañ a xarab xam ni moom nattu mooy li ko dan waaye kenn xamu ko aussi ci ak jubali kenn xamu ko aussi ci wax naka sudu noona kenn mosu koo gis aussi tamit ci naka sudu noona mais lii yàlla moom moo ko bindoon ci ab jëm comme yàlla ko bindoon ci jëm ci woon na ab juddoom ne lii dina ko dal kon yàlla na ko yàlla jeexal ci kattanu suñu borom vraiment Pape ñi ngi gërëm ñëpp ñi ngi sant ñëpp ñi waa écri di gërëm mboolem ñi ci jàpp bekaayoo ña jëkkoon a ñëw ñi ñëwagut ak ñëpp ñi ngi leen di gërëm vraiment di leen sant tey daal situation bi yàlla na ko yàlla rek ci bisu tey ci kàttanam suñu borom jërëjëf jërëjëf salaamaaleykum wa rahmatulah maa ngi nuyu jotaay bi yëpp. silence. maa ngi nuyu fi nekk ñëpp ñu fii yëpp tey di xamal ne rafetlu naa lii tey ak lu làmb tey suñu feer suñu mbokk suñu lépp. muy Lac de Guiers nattu wàcc ci kaw taalibe Serigne Babacar Sy boobu ma gis fi waa Pikine ma gis fi waa Parcelles gis bi ñëpp mu doon loo xam ne lu rafet la ñun ñoo bokk ndey bokk bàyyi mais tey sama yaram dafa daw lu tax sama yaram daw mooy champion bu mel ne Lac de bu ñuy jël tey mooy meilleur leader Sénégal moo fi gën a riche palmarès tey su ma gisee tey ñu taxaw ñu wut ndimbal te làmb am kattan boo xam ne tey bu ñu concerté tey mbir mu yorul yegg fii ba ñuy wut ndimbal vraiment lii nattu la day dal ku nekk barki Seydina Mohamed mais nag bàyyi nañ ko ci loxo suñu borom suñu loxo suñu borom bi nga xam ne tabaraka a taala bi nga xam ne moo mën lépp ñu ngi sant les bonnes volontés di sant Bécaye Mbaye di ko sant bu baax a baax a baax a baax a baax du question ba la dëgg dafa war a am combat pour fay lii déedéet nattu la dinañ ko fay te du doon combat duñ ko jaare ci ay combat duñ ko jaare ci ay dara ñu ngi woo président Youssou Ndour Youssou ma jigéen bi nga xam ne moom vraiment bu làmb amee yenn jéego yi moom taxaw na ci muy avocat wu ñu ngi koy woo li nga xam ne moo ci des na ko mottali la déggee génn faible nekkoon dellu ci ay entraînement am parce que la légende la wasalaamaaleykum wa rahmatulah. salaamaaleykum. waaw asalaamaaleykum. maa ngi nuyu ñi fi toog ci salle bi ah muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw man kontaanu ma quoi non ndax tey ñun li ñu dal man Tëngéej laa dëkk man dëkkuma Géejawaay Tëngéej laa jógee dama demoon entraînement damay doog a Fatma moo wax ma ko démb ma ne damay ñëw assisté li tax may assisté nag lenn rek la am muy jullit laa la na jullit la dëkkuma Géejawaay ay adversaire laa fa am te la ma def tey natt boobu ko dalee ñun lu ñu war mooy quartier yi bari na fii gisuma fi koo xamante ne parcelle xanaa kenn laa fi gis muy Serigne Ndiaye amul waa Pikine amul waa Ngor amul waa Yoff amul waa Yaraax Pape Sarr waaw non boo dégg Pape Sarr mooy géej waaye dëgg la mooy Pikine dëgg la mais maanaam mbëri laa tax muy wax waroon na ma ñëw assisté ah fii ñëpp a nekk ci contrat fii ñëpp nekk ci contrat ñëpp di bëri di entraîné di dallu di récupéré am déet la de deful yëf yu jublam de nattu bu jóge suñu borom dal ko rek la te mën naa génn léegi man mu dal ma baa mu dal keneen te lii am importance mooy yow yonente bi salaa nee na nga yéene sa bopp yéene keneen ne nga mën a doon am jaam am julli buñ ko seetaan buñ ko seetaanee suñu bopp lañ seetaan ala géejawaay li ñuy wax géejawaay benn bopp jàppale booy bi mu waaye tàcc na lañ ko waaye amaa soxla fii kenn mënul suñu rek moo man fii ku ñu ku yàlla teg loxo moo fi nekk ak ku yàlla dimbali yërmande nag laay waxaaye yéen géejuwaay rek rek rek rek rek naa mën a soutenir la da mu génn dëgg laa wax man lu ma ma dépense man dama ne la géejawaay rek laa la wax waxuma waxuma Tëngéej waxuma Mbao waxuma Pikine waxuma géeja waxuma parcelle dama ne la géejawaay li fa nekk waroon naa mën a jàppale seen doom ndax la la dëggee ah xamul ma ko dara de bu dëgg ne yàlla ndax li ñuy gisante bari bu ma juumul ñaari yow laa ko ma si gis si àddina jaxaran nii kon donc li am solo mooy weer a ngeen torop yéen waa Géejawaay man waruma woon ñëw fii toog laa dëkk dafa sori damay taalaat sama oto dem ñibbi mais géejewaay dama na la ñoom rek ñoom rek kese day duggoon génne duggaat génne barki yonent yàlla mu wax waa ji gannaaw bi ñu sant yàlla julli si yonent bi alayhi salaatu wasalaam li ñu war a wax yëpp mag ñi kilifa yi wax nañu ko yàlla dafa def may wax si turu bi waaye di gërëm kenn koo xam si ni. sunu papa la sunu xale la muy alaaji Bécaye Mbaye nañ ko tàccuwaat bu baax ndax presse bi bu leen jàpp ne presse bi liggéeyu ci presse daal ci liggéey guddeeg ba ci suba ngoon ci li nga xamee nattu bi nga xamee dal na la da kenn ku ci nekk di liggéey ci làmb wala ngay liggéey ci leneen leneen jàppal na lii bis mës naa ñëw mën naa ñëw dal la li la da li ko dal jombul kenn fii ko jombul kenn ci ñun ñii di filmer di dem ci dégg di leen dégg micro lu waay di wax ci nit na doon du rafet lu waay di nit di wax ci nit di ko dégg micro na doon lu rafet te ñoo xam ne suñu liggéey bi métier noble la nañu ko rafetal te bañ koo yàq li ñuy def nii nañ koo rafetal te bañ koo yàq am na yenn wax yoo xam ci nii bu dalee waree tas sax nañ ko dindi teg ko fële te ñoo xam ne ñun dañoo war a defar ñun nag dinañ liggéey liggéey bu am solo lu ñu mën ak lu ñu mënul dinañ ko def waaye tamit di gërëm Fatma Dia bu baax baax ndax liggéey na ci liggéey bu aju am solo tàccuwaat leen ko bu baax a baax ñun benn bopp lañ kenn mënu koo xam ñaar làmb nag dafa am ku mën a am nday ak ku ba amul bàyyi nañu jàppale Lac de Guiers ndax Lac de sunu nit la sunu mbokk la de nañu ko def ni sunu bopp dañu bàyyi xasante beeg waxante lu ñaaw nañu jàppale Lac de Guiers ndax lii mooy wax ji lii mooy coow li ni ko Lirou Diane defee keneen ak keneen defee ko nañ ko jàppale ñun dañuy jàppale Lac de Guiers ci léegi ba ci ngoon te di wax ne presse bi képp koo xam ci ni bokk nga ci groupe yëpp dinañ leen dajale lu waay am lu waay mën na ko ci def di woo sama benn xarit muy Ousmane Sy Jasineer na si jàpp di woo góor a ma sëy na si jàpp di ci woo laay bu deef na ci jàpp yéen samay nit ngeen jàpp leen ci bu baax baax ndax la dëgër ñoo ko ko ngi leen di sant yéen ñëpp nekk salle presse bi ñoo ngi leen di gërëm di leen sant du sant suñu kilifa yi fi toog su ma tuddee Père Diaw rek wax naa ñëpp ah ak la Diop ñi fi nekk ñëpp ñoo ngi leen di gërëm di leen sant gis nañ taxawaay vraiment suñu xol seet na ci yéen boobu léegi toogu leen mbër yi fi nekk yëpp vraiment ñoo ngi leen di gërëm di sant waaw am na si ñoo xam ne eh, du ma leen sant moom ndax mbir mi seen mbir la ku ne ñoom saa kees ñoom Alioune Seye ak xale yi ci nekk yëpp sant ñoom waaw euh, nu mu tudd euh, Bébé Saloum ñoo ngi lay gërëm bu baax ak yéen mbër yi fi ne yi fi nekkul te bëggoon a ñëw te ñëwuñu te wooma vraiment ñoo ngi sant ñëpp am na ñu bëri ñu bëggoon a ñëw te woonan ma tardement beeg loolu ñoo ngi gërëm ñëpp di sant ku ñëw ku ñëwul yëpp Euh, di gërëm tamit wax dëgg yàlla ki nu jox saal bi waaw muy Bira Sène wax dëgg yàlla moo ñu jox saal bi ñoo ngi koy gërëm di ko sant teewul vraiment ñoo ngi koy gërëm ci loolu moo ñu jox saal bi voilà ñoo ngi koy gërëm di gërëm ménagères yi fi nekk euh, entraîneurs yi euh, Pambay ñoom ñëpp ñoo ngi leen di gërëm di leen sant di wax benn affaire boo xam ne tey jii moo ñu fi dajale ñoom ñëpp. muy lim fi dajale muy kaaw Lac de Guiers 2 sunu rak sunu xarit sunu frère euh, moo ñu fi dajale kaaw moo ñu fi dajale ndax euh, vraiment li daal Lac de Guiers naa daal ku ne cat la nag te cat du wees ndax su daloon keneen ku dul Lac de ni ñu taxawee noonu lañ koy taxawee ni mu taxawee noonu lañ koy taxawee kon nag tey jii fii noon naa ni sunu wootee du ne kenn yëg ko du ne kenn yëg ko ñëpp yëg nañ ko ku ñëw nag ku ñëwul sa affaire la yaa xam l'essentiel li ñu war a def ñun def nan ko ñun dañuy ñaan dimbal di jéggulu ndax tey jii ku nekk at na ngay gisee at ku nekk na ngay waxee ñun daal ñun dañuy jéggulu tey ñaan dimbal ndax la dëgër suñu rakk la suñu xarit la bokk ci làmb am fu mu yóbbu làmb am ñu ko bëgg kon nag su ko nattu dalee lii rek lan mën a taxaw ñaan njekk ak trang gis nañ ak lu làmb nañ taxawee Euh, euh, ñi ci jàpp te ñu tudd seen tur jaar la ko ci per Bécaye mbay ñoo ngi koy gërëm di ko sant Père Bécaye taxawaay bi rafet na ak doomam Modou Mbaye ak Makan promoteur ñoo ngi koy gërëm bu baax di ko sant bu baax a baax a baax ndax euh, comme li sa wax léegi rek bi taxawee ci tribunal bi bi bi bi moom moo njëkk a def effort moom moo njëkk a génn xaalisam te ko ci ñoo ngi woo promoteur yépp nag ku ko mën a jàppale ci benn affaire ngay muy nga tëggal ko làmb tey su doon sunu sago lii ñuy def sax duñ ko def ndax tey mun nañoo wax ne mën nañ ko tëggal làmb ñu génne kase avance su dee ñaari avance ba ñu ñu ba ñetti avance bëgg nañu ñu jàppale ko ci mu génn fa mu nekk loolu moo ñu tax ku ci mën ta tëggal làmb tamit loo man ci jàppale ko xeebuñu dërëm ñu ñaar dërëm xeebuñu de bañu dara ñoo ngi koy commencé ci Abdou Aziz Ndiaye mi ngi ci am lu ma wax ñoo ngi ci kilifa géej way Kor Ndiak Euh, famille Pape Bara itam ñoo ngi leen di gërëm vraiment gis nañ taxawaay bi ak ñoom Masata ñoom ñëpp di woo Mansour Ba tamit di ko woo promoteur la Ibrahima Diop am na woo na ma am na lu mu wax te nee naa ko man fekkee tey dafa am kenn koo xam da nga jóg pour jàppal la de guerre ak nu mun ta toll loo koy jox papaam mi ngi fi rakkam mi ngi fi Mamor numéro Mamor la ñuy joxe léegi pour kenn ku ko bëgg a jàppale nga jaarale ko ci numéro Mamor nga woo Mamor wala nga woo papaam ndax loolu rek moo ñu tax a jóg pour ñu jàppale suñu rak suñu xarit suñu frère ñëpp nag ñoo ngi woo ñëpp ku ko mën a jàppale ndax tey am na benn somb na am père Bécaye am na lu mu indi indi na euh, vingt cinq millions amoon nañu euh, dix millions ak un million cinq cent mu war a nekk ñaata loolu soo ko calculé ah ci cinquante neuf millions kon ñaataa ci des cinquante neuf millions soo ci génnee vingt cinq ak onze millions cinq cent loolu ñaata la ñaata moo ciy des kon ah. ñaata moo ci des. ok ok. 23 500 moo ci des. 23 millions 500 kon moo ñu dese ñoo ngi ñaar jël nañ ñeenti avocat am na ñeenti avocat. silence silence s'il vous am na ñeenti avocat tey dañuy ñaan ndimbal lu waay mën a jàppalee. nga jàppale ñu ko loolu daal moo fi indi di ñaana at barka kayre tamit ya waa numéro Mamor waxal. 77. 77 numéro Mamor. 659. 659. 98. 98. 53. 53 mooy numéro Mamor mooy rakam bi mbokkal ndey ak bàyyi ku am loo koy jàppalee rek mësi am na lu mu wax sànq mi ngi doon laaj kum fu mu koy jaarale pour ko koy jàppale numéro Mamor mi ngi noonu mësi la. di wax Arbarka Kayra tam sunu frère la sunu rakk la su sunu doom la nekk ci kaso bi tamit di ko ñaan yàlla dimbali ko génn ko fa mu nekk at ñëpp ña fa nekk at mbay mbay mbay mbay. mbay warax sunu doom la dëkk Géejawaay nekk mbër tamit mbay warax ñoo ngi koy ñaanal fa mu nekk yàlla gën ñi nekk si kaso bi yëpp yàlla na kaso yi witt ñun daal loolu la ñuy ñaan ndimbal la ñuy ñaan ku nu mën a jàppale sunu rakk sunu xarit muy Lac de Guiers yàlla dimbali ko génne ko fa mu nekk bañu ñu dërëm bañu ñu ñaar dërëm lu ko waaye mën a dimbalee soo ko mënta dimbalee ci promoteur euh, yu xaalis ñu tëggal ko làmb Ablaye Diop xaas tam ñoo ngi koy gërëm gis nañ taxawaay bi ba léegi tamit ak ñi ci jàpp ñëpp ak euh, ci nu mu tudd Euh, kii nekk euh, nu mu tudd euh, lamit Samba ah, ñoom ñëpp vraiment kenn lekkul kenn naan ñëpp ñoo ngi ciy taxaw ak ñoom Bekkaay ñoom Modou faat ma Dia ñi ci jàpp ñëpp ak ñi nga xam ni bëgguñu ko tudd seen tur ndax mënoo lim ñëpp ah ndax boo bëlee ku nekk ku doxul ku waxul ci kaw yaa ngi wax ci suuf. asalaamaaleykum. dañuy sant yàlla julli ci Yonent bi. ci sant suñu ñaari waajur ñu ngi sant mbooloom ku fi teew. ñu ngi sant presse bi yëpp di wax rek nii ñoom dañu baax rek di ma cëral mais li fi Lirou Diane def Arona def ko fi Massila def ko fi ñi jël kàddu yëpp def ko fi bëgguma fi wax leneen mais ñeenti moo rek laa leen di wax muy police centrale bu Guédiawaye ñu ngi koy gërëm bu baax a baax ndax la loi c'est la ku xam na ni Lac de Guiers polisu Guédiawaye bu doon seen sago dañ ko jëli tribunaalu Guédiawaye juge bi gën a mag doon ko atte bëgg koo atte ndax Lac de nit ku mag la mais amul kenn koo xam ni mën nga wàcce yoon Lac de ñaari caabi ñoo ko téye première caabi bi mooy ñi mu yoreel deuxième caabi mooy juge bi kon ñun li ñuy ñaan mooy waa géejawaay duma nekk di détail ku ne xam ne ni géejawaay kilifa yi ñu ngi dajaloo pour jàppale Lac de Guiers mais lii fi am ci somme am nit ku jël vingt cinq millions teg ko ci loxol Bécaye avant ñuy gërëm Bécaye dañuy gërëm borom vingt cinq millions yi c'est parce que ñu di ko gërëm bu amuloo ngor bu toll ni jël ko jox ko Bécaye bekkaay am ngor bu toll ni woo papay la dëgër wañ ñaxaay bi takk ci loxoom kon tey wax ji dana sore damay wax rek nii li nga xam ni moom la Lac de Guiers yoreel ñi mu yoreel li juge bi di def ba xam ñi la de yoreel juge bi dana def loolu liñ koy ñaan moom miy jàpp te di bàyyi mu dimbali ñu ci Lac de xool nan lay def ba loolu fi ne mu woo ñi Lac yoreel xool nu muy waxtaan ak ñoom ba la de Guiers génn liggéey fay ndax mbër yu mag yi nekk au niveau du Guédiawaye nekk parcelle nekk tëngéej gi ama neex di wax nekk yaraax mbër yu am 100 millions kenn ku nekk boo jëloon 5 millions lebal ko la de bu génnee dana la fay te xam naa loolu mu ci xelu mbër yi kon li ma bëgg mooy na lépp rafet ñu ngi sant ma silla bu baax a baax te di wax ne Bira man li ma jàpp mooy Bira Sène complexe la Bira maa ngi dégg sànq ku naan ñu ngi gërëm Bira Sène ci salle bi Bira Sène moomul salle bi salle bi ñun sénégalais yi ñoo ko moom ko moom tey jii bu ko leeroon ni Diomaye la fi toog mais li mu doon noo ko def te ñu won que ni que nag neruñu la dëgër ni ñuy def ba yàlla dogal ñu téye ko. dinañu def ay pexe ñaan autorité yi waa Guédiawaye jox yeneen mbër yi jox li fi manqué ñu defal ko Lac de Guiers fay seeni borom jamono ñooy kon tëgg lu làmb li ñu def daal xam naa ne Aziz Ndiaye Baye Ndiaye Bare Gueye Ndiaye promoteur yi nekk ci biir Guédiawaye dinañ jël li ñu am ñoom Modou jël li ñu am Ama Baldé ñoom jël li ñu am Boy Niang ñoom jël dolli ko ci li fi nekkoon ñu fay bor bi la dëgër génn te mbër yi de faire attention nekkuñu ci détails yi ah. à tout moment jàpp nañu mbër dafa def lii dañ ko war a fayal loolu bu mu fi amati mbër yi nañu am ngor bu toll nii li ñu am nañ ci yem li ñu moomoon nañ ko bàyyi nañu waxante dëgg te yàlla tax la dëgër la gën a ci àdduna la dëgër àndandoo bu mauvais la yow ndax problème yi mu dugg yëpp. benn sagaru nit moo ko mais bu la dëggee génnee ñun dinañu ko teg ci axe ndax géej waay kenn mosu leen a yàq jërëjëf jërëjëf